fa vingt cinq parce que ñoom dañuy tibb rek ni nombre rek bi bind parce que on a on n'est pas représenté hmm. foo fu ñu la représenté wul nag mënoo fa contester dara donc c'est là où nous devons travailler parce que dafa am loo xamante ni pour man buñ ko sàgganee jarul ñuy dem élection parce que on doit travailler sur la carte électorale bokk na si li ngeen sàggane justement fichier bi non amagoo leen ko. non moom laa nous à mois de deux mois. moom laa lay xamagu leen ban fichier ngeen di demee élection moo tax mani te coowu leen ko yéen a ngi nekk ci yeneen. moo tax mani la. Mm. les élections présidentielles doivent se jouer sur deux éléments. le fichier électoral et la carte électorale. Mm. leneen li ciy des nag mooy. Euh, parrainage bi contrôle bi. yooyu yëpp mm. contrôle bi peut-être xëy na problème de doublon. y a une commission euh, de contrôle ñun euh, des moom ñun dañu ko am. parce que PRP moom. Euh, je ne pense pas que ni doublon mën na ko téye parce que doublon pour mu téye fii candidat c'est difficile quand mm. euh, parce que tu ne peux pas avoir presque cent cent soixante dix mille mm. ay problème de doublon parce que premier lot bi rek déjà boo ko doon déposé ñu rejeté la lépp ñu ne yëpp doublon la mm. un lot de soixante ñu rejeté la tu as deux fois soixante lay toog la xaar donc problème tu as heures pour rectifier ça et puis parrainage pour nga nous on a travaillé sur trois travailler sur les parrains très sûrs, sur des parrains sûrs et sur des parrains douteux pour minimiser le nombre de doublons et de et d'erreurs yi nga xamante ni mun na am ci parrainage bi moo tax ma ni la ñiy problème mu euh, effectif boobu nga xam ne président de ci waxoon na ko jaaxal c'est parce qu'ils ne connaissent pas le monsieur li ñu ñëwee dañu ni vous les responsables vous êtes des parrains très très très très sûrs donc votre parrainage on met ça de côté nos parents ñu teg leen de côté mu nekk deuxième étape bi le lot de parrains douteux sont les gens qu'on rencontre mm. dans la rue on les prend on les met de côté donc on a trois lots de parrains yoo xamante ni mm. avec nos services techniques leer nañu ni bu ñu demee ci parrainage bi pour ku ñu jàpp ñu dina dina dina dina jafe trop hmm. conseil constitutionnel tam gëm ngeen ko gëm ngeen ne ak ak euh, yelleefu way politique yëpp dina ko sàmm dina ko respecté et que du tëddee euh, du du féete dafay tëddee njaaxanaay parce que conseil constitutionnel quand même yàgg nañu tam émettre ay doute jëm ci jëm ci ñoom les les sept sages maintenant <laughs> ils sont plus cinq yaakaar ngeen ne danañu doxal yoon xam nga sànq dama ni la dal xel mënul weesu nga tëdd sa bi sa wetu gétt bàyyi bukk bi ci biir béy yi ngay gëmma gëmmalu nga naan noo dina leen lekk du leen lekk kon vigilance ngeen di demee absolue vigilance totale mais contrôle logiciel bi contrôler yëf yi ca conseil constitutionnel euh, man dégg naa société civile bi ñu ne waxuma la opposition mais ñoom sax maîtriser wuñ ko donc kuñ bëgg a éliminer éliminer la waaw mais y a condition pour éliminer <laughs> dafay am ay conditions yooyu éliminer nit ki parce que quand même euh, y a des voies de recours yoo xamante ni boo naree éliminer nit ki ci loo xamul tegul ci yoon mënul nekk mm, quand même. Mm, ah yéen lu ngeen mënal yéen lan ngeen mënal euh, président Macky ak système bi. lan ngeen leen mënal ba mu ñëwee ba tey lu mu fi waxoon ne da koy def def na ko te dara xewul. waaw en tout cas. Euh, parrainage bi bañ koy voté en tout cas yéen ñëpp da ngeen taxawoon ne du ko fi voté keroog leader opposition bi yëpp Sandaga lañ jàpp na fi Karim Wade dara xewul jàpp na fi Ousmane ko dara xewul su ne da leen di éliminer tam mën nañ njorto ne dara du xew gis nga jàppkatu jaan na hmm. mën ngay jàpp di dem di jàpp di dem di jàpp di dem nga jàpp jaan bu ndaw mu rey la ah fi mu ne jaan dana fi gën a mag Ousmane Sonko déggoo ma la wax dama ni la jàppkatu jaan na ngay jàpp di dem mën ngaa jàpp ñànguur nga jàpp beneen xaw ma lan hmm, jaan ba ngay xeeb rey la ba ngay xeeb mu rey la à bon entendeur salut président Macky Sall bu mënee xam loolu rek je pense bien hmm. que nii eh, dina dina dina gën si moom taw bon pour man je ne souhaite vraiment pas que Sénégal àgg foofu quand même hmm. président Macky Sall ak lu ñu mën a wax on lui souhaite quand euh, mu am benn sortie boo xamante ni bu bu honorable la euh, mu nekk koo xamante ni itam euh, le futur président dina ko soxla. Hmm. parce que nit mënoo yor réew ba nga lu toll fukki at ak ñaar nga génn ñu ne soxlawuñu la c'est pas possible. donc tey ñun li ñu koy li ñu koy yéene mooy li ñu yéene ñeneen ñi nga xam ne dañ fee génne. Hmm. muy président Abdoulaye Wade di président Abdou Diouf. Hmm. donc il ne doit pas il ne faire moins que ces gens là. warul def lu lu lu yées li ñuy def. lu yées li ñooñu def te wax dëgg yàlla seen gannaaw rafet na bi ñu demee. Hmm. ak coow li lu mu mën a am. ñoom génn nañu ci porte bu honorable li ñu koy ñaan mooy na bàyyi président Ousmane Sonko mu participer mu bàyyi ces détenus politique là ñu mën a def seen devoir citoyen dem voter ji. kenn ku nekk ñibbi ci réewam kenn ku nekk dem këram toog c'est tout ce que nous devons entendre leneen li ci des moom nee na il ne sera pas candidat ñëpp tàccu nañu ko waaye gis nga nga bañ a nekk candidat même si continue à le répéter du am poids mu xëy benn minute ni bàyyi naa président Ousmane Sonko mu bokk ci présidentielle yi donc ñun vraiment ñun dañu koy ñaan ñun ñi nga xamante ni nous faisons partie de sa famille mm. ñun ñaan ko lii muy def nii yëpp su fekkee il y des gens qui lui conseillent ça parce que mu xam aussi que ni nit ñi bu ñu ñëwee am nañu leneen lu ñu tal quoi. Mm. lu bokkul nekk fii di fayoon teg nangam sangam ñëpp Sénégal liggéey la laaj liggéey bi fi nekk nit ñi non man man dama yërëm Sénégal président bi ñëw. Mm. président bi ñëw non dama ko yërëm Fatou dama ko yërëm Dieu sait que dama yërëm président bi ñëw fii je vous jure gis nga. ndax problème yi mu fi nar a fekk bi may jógee parrainage bi dama ñëw siège ba. xool président Déthié et j'avais pitié de lui ma ne avec ce que j'ai vu dans ce pays là noo nit ki ñuy ñaan yàlla pour yenn ko ko yàlla rek moo ko ko mën a oyofal parce que c'est pas facile kon nit kooku am na leneen lu mu tal président ah. Macky Sall na bàyyi président Ousmane Sonko mu bàyyi les détenus politiques ñu organiser des élections transparentes sénégalais yi xëy voté. Hmm. dem liggéey seen yoon réew mi continuer. Hmm. loolu mooy liñ koy ñaan quoi en fait. Hmm. alors ñiy euh, topp live bi am na ku ci demandé lan mooy seen programme pour l'éducation euh, partagé leen euh, fet aimer aussi bu ko defee ñeneen mun a gis waxtaan bi si wàllu éducation lan ngeen ci nar. waaw xam nga programme mu PRP. dafa programme moom doo ko dévoiler mais peut-être les les grands axes. non xam nga xam nga voilà xam nga programme mu PRP surtout euh, ce qui concerne l'éducation yaakaar na ni on a une brave dame d'ailleurs loo xam ne lu xaw a étonnant la d'ailleurs mm. euh, koo xamante ni mu ngi nekk ci ministère de l'éducation nationale mooy suñu chargé de l' éducation nationale d' ailleurs sax man je me demande comment se fait-il nguuru Macky Sall mën koo mën koo téye foofu ba tey ji parce que hmm. chaque jour dama naan suba mën nañ koo jëlee fii parce que comme ñoom bëgguñu ko ko ko xarañ bëgguñu koo xamante ni mën na hmm. parce que toujours ñoom dañuy def la promotion des médiocres te euh, madame Brigitte nekk hmm. koo xamante ni wax dëgg yàlla euh, man toujours damay wax ni damay ñaanal ndaw yi ñaanal way jur yi président Déthié mën a jël réew mi ba madame Brigitte yore l'éducation nationale vous verrez qu'il y changement comme par exemple nga ni nga ni nga ni nga ni nga ni xaw ma ban dëkk laay tudd bëgguma tudd dëkk jàmbur di tooñ mhm. waaye dina mel ni Sénégal ak Paris en fait mhm. voilà mais en tout cas daal du ma du ma wax lépp ci programme bi parce que damay bàyyi peut-être xëy na sous dinañu dévoiler le programme du parti kenn ku nekk ci euh, les secrétaires nationaux. Mm. dina am li nga xamante ni moom lay indi. mais changement daal nar na am ci éducation bu baax a baax a baax a baax. et non seulement lan ngeen gis ne moo ngi ci te jaarul yoon. Euh, xam nga xam nga xam nga xam nga réew day dox. dama ne la sànq président Idrissa nga baal ma ci ni ma ko tuddee man je peux le dire quand naa ko mën naa ko tudd ndax suñu kilifa la. Mm. lu mën a am ci ñoom ci keppaaram la ñu génnee. Mm-hmm. Euh, xam nga tey y a beaucoup de choses yoo xamante ni pour man éducation école sénégalaise war na koo dépasser. war na koo dépasser parce que da ngay jël xale yi. Mhm. nga chargé leen benn façon chargé boo xamante ni man je le vois à mes enfants sama doom yi dama leen di xool kër ga. Mhm. ba finalement damay wax sama soxna si est-ce que def benn affaire. waaw ma ne ko on sélectionne les matières phares yi nga xamante mooy jëriñ xale yi. Mhm. xam nga on divise l'emploi du temps à la maison. pour que ñii bu Euh, li ngay li ñuy jël xale yenn leen ko yenn yenn yenn ba yow mii di mag mu leer na ne yow àttanoo ko parce que j'ai vu mon mon mon de sept ans là dafay def composition yi yaakaar naa est-ce que du suba hmm. non mais boo gisee liste bi man xaw ma waaw ah. yëf yee bari oh. non <laughs> donc un programme allégé kon mun nañ ko xaar non non non dinañu hmm. na sénégalais yi euh, ñu ngi leen di ñaan daal hmm. euh, ñu ñu ñu jox seen confiance président Déthié le changement bi nga xamante ni moom la ñu xaar bëgg ko pour un Sénégal bon à vivre et beau à ñoom ñu am ko. jërëjëf maître El Hadj euh, temps bi jeex na takk ñu ngi lay gërëm euh, ci wuy si bi ma fàttali ni yow yaay secretaire national chargé des affaires juridiques bu PRP euh, parti bi Déthié Fall jiite nga nekk itam coordonnateur départemental bu Tivaouane c'est bien sax waaw absolument je suis le coordinateur départemental de. du PRPA au niveau de Tivaouane. Mm. xam nga actuellement on appelle ça coordinateur mais au départ c'était le point focal. Euh, peut-être xëy na ah, fii quelque temps on va essayer de de revoir toutes ces choses là. Euh, comme yeneen naataangoo yi mais en tout cas daal. may wax ni plaisir bi c'est pour moi. Mm. c'est c'est vraiment un énorme plaisir ñëw jàkkaarloog yow tey euh, mën na waxtaan ak internautes yi. surtout fi réew mi toll. mais waxtaan ak ñoom aussi ci nit koo xamante ni. Hmm. yaakaar naa ni dayoom. Euh, weesu na fi ko nit ñi di xaare parce que hmm. jusqu'à présent damay wax ni président Déthié eh, booy wax ci moom li nit ñi di wax ci moom ni yëpp. Hmm. nekk la pointe de la l'iceberg tey montagne la boo xamante ni ceex la rek la nit ñi di seen may ñaan sénégalais yi nag ñu bañ a sàggan ba li nekk ci suuf ñu bañ koo gis. parce que vraiment c'est c'est un boo xamante ni il mérite vraiment parce que man je n'ai jamais été ému par une personne très sincèrement. Hmm. <laughs> parce que man damay naan man xëy na li ma doon séeréer la xaw ma nu mu demee noonu. <laughs> mais jaaxal ma dafay kii mais président Déthié su may jàkkaarloog moom souvent dama koy xool ba je perds les mots. Hmm. je perds euh, loolu pour wax euh, pour wax la. nit ki nu mu toll. mais en tout cas maa ngi lay sant bu baax. di la remercier ci hmm. invitation bi. Euh, di wax internautes yi ñu ngi leen di jégalu itam parce que waxtaan moo neexul mhm. yenn saa yi nga wax ça peut toucher de gens des mhm. gens mais ñoom nañu jàpp ne rek ñun on est là pour mhm. euh, luy jëmale réew mi kanam xam nga des accidents de langage nag mënul ñàkk dans dans la vie euh, de l'être humain mais nañ ko jàppee que ni nit ku la lu fi jekk di yàlla sunu borom ak sa xarañte jërëjëf jërëjëf maître euh, El Hadj Diouf ñu ngi koy gërëm bu baax gërëm ñi ñu doon euh, seetaan ñëpp di leen euh, jox rendez-vous pour beneen 2024 plus lundi incha allah à partir de 19h di leen wax itam ngeen continuer topp suñuy programme ndax xam ngeen ne Télé Sénégal dafa indi programme bu bees tàq et chaque jour di ngeen découvrir lu bees on est sûr aussi que lu leen di neex lay doon parce que daf seen bànneex rek moom moo ñu yitteel ñu gërëm toute l'équipe technique ale ñu fanaan jàmm kon ba beneen incha allah